Assalamu asalaamaaleykum mbokki internet Initiative ñu suivre à travers CIK TV Salim Omar l'animateur du club ça me fait plaisir d'être là parmi vous ce soir alors mbégte rek laay am saa su ne jàkkaarloo ko yéen wala jëndoo ko yéen xam nga yéen ak ñun ñun ñooy yéen yéen ñun alors sans ñun sans yéen du ñu dem mi ngi noonu tey ñu ngi fii ci Zac Mbao fii Cheikh Ibrahima Keita comme d'habitude tey nag ñu dalal benn soxna boo xam ne dafa ñëw bëgg a indi ay CDM jëmale ko ci ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Keita yooyu waaye laataa loolu dañ koy bàyyi.

Euh, mu ñëwoon ci nga xam ni mooy euh, Cheikh Ibrahima Keita mu faj ko ba mu wér yaay dama lay laaj li ma la njëkk a laaj mooy kan moo la boole ak Cheikh Ibrahima Keita. Ibrahima Keita sama xarit bu jëkk hmm. moo ko booloo ak moom. Hmm. sama jëkkër dafa nekk borom bi liggéey hmm. la. léegi muy jàmbat sama tawat. mu jàmbatee sama tawat. sama xaritam boobu jëkk numéro Ibrahima Keita. numéro bi nag di tam. jot si ba jël mm-hmm. jox sama kër. Mm-hmm. kooku nee na xaritam. Mm-hmm. jabaram dafa feebaroon mu feebari ko. bu si seegu bu ko fajee bu mu wér. mu jox ko mu jox xarit kër. sama xaritu dëkk sama xaritu dëkk mu jox sama jëkkër mu jox ma ko nag ko dexee. ci laa ko ne tey tey tey dinaa ko parce que sama yaram bii. Mm-hmm. neexut te tëdd baale ak moom. Mm-hmm. mënuma da nga yor crédit yor naa crédit. Mm-hmm. ma jënd crédit oo ma ko si guddi gi. mu bu subaa nga ñëw. ma ñëwee ma ànd ak sama doom bu ma ñëwee. ma nooyu dugg waxuma ko dara dëkk waxuma ko dara moom nga dama nga toog xaar. bu ma toogee xaar ko. mu génnee daf wax man di nga xam ne moo nekk si man man naka waaw bu soobee yàlla man dinaa ñëwaat bu ma ñëwaatee dinaa seet bi ñuy def moom soo demee nga waxtaan ma àggee guddi gi oo sama jëkkër ñu waxtaan Cheikh Ibrahima Keita mi ngi noonu ndax ku deful résultat kenn du la boole ak kenn waxtu na ñu boole la ak moom keneen boole la kii keneen boole gis nga procédure bu mu wax ah numéro bi dafa jógee xaw ma ci euh, ci xaritu jëkkëram ba egsi ci keneen ba keneen ñëw paas ko ko ba mu egsi ci moom kon kooku def résultat rek moo tax loola loola am mm. alors yaay tey mën nañu xam ban genre feebar bu dee euh, du doon du doon problème ci yow nga wax ñu ban genre feebar moo la daal ba nga ñëw ci loxoy Cheikh Ibrahima Keita mu tegal ko wala ak feebar boobu walaay feebar bi sama moom mm-hmm. ndax feebar bi mm-hmm. fu nekk faj naa ko mm-hmm. def naa si hôpital ñaari yoon foofu la ñu wéruma ma dem dem ma d'abord feebar ñaata at def yow. feebar bi sama doom bi am ak juróom-ñaar. Mhm. bu amee at dama feebar boobu daal. fukki at ak ñaar ñaar ça veut dire que 14 ans fukki at ak. Euh, at. Mhm. la ma feebar ça que fukki at ak bu dee 17 ans la am tey waaw fukki at ak ñeent lu feeru def ci sama yaram tey Cheikh nga ñëw ci Cheikh Ibrahima Keita kañ nga ñëw fii mu fii ñëw avant ñuy um koor fe fekk sax ku ñëw koor weer koor dina feeñ ci ci ci ren gi wala daaw ren gi ren gi ñu nii ren gi nii nga nga nga ñëw defagoo fi sans weer bu mat parce que ñaar weer parce que bu yàggee si man la parce que diiran bi pour ma jog ñëw day diis si man sama njëkk mooy forcé na ma jógal nga dem. Mariama jógal nga dem ba faju ji. Mm-hmm. mu ne ko bu soobee yàlla dinaa faju mm-hmm. ndax li ma gis nii. Mm-hmm. mu ne ah ma ne ko sama xel dal na si. te sant naa si yàlla. ne sax waaw. sama njëkkër jàppale ma trop. sonn na si man trop. dëgg la. moom tamit. nga xam ne moom mooy faj Ibrahima Kay. am na yërmande jàppale na ma. dimbali na ba mu egsi fii. dëgg la sànq rek maa koy waxtaan ak ñi te xaw ma leen sax. dëgg la. laay xaw ma waaw maa ngi sant yàlla bu baax. di ko gërëm heure bu mu jullee maa ngi koy sànni ñaar. waaw xam nga euh, da nga wax wax ju am solo mooy feebar def na ci yow fukki at ak ñeent. ñeent nga ñëw ci giir ñaar weer mu faj la. waaw ñaar nga mën a delloo si fii. Mm. toog du wax ak ñun. wallaahi dëgg la bi moom moo ma dimbali ba ma yegg si fii. lu ma wax rek mënuma góorgóorlu dina baax. yaay baax nga jaar bari woon na ma demoon nga jógee Serigne.

mënoon dem sa mhm. hôpital yi. nag fu ne dem naa analyse naa ko ba kees gi ma lay wax nii. Mhm. ñu ma wax analyse ñaar fukki junni ak ñeent. Mhm. ma ne la aw oh, ma sama jëkkër amul doole sama rakk amul doole. léegi nag bu nga xam ne dem na fu muy liggéey sant mu jox ko bii si laa gisee moom nii si laa amee tamit sama ginnaaw yàlla si laa am. waaw ñu dellusiwaat euh, ci sa kàddu bi nga ne euh, ba ngeen fi ñëwee. mu ne la demal rek loo am jox ndax borom jaboot nga. Mm. loolu booba lan nga ba ngeen ñëw fi amoon nga yaakaar ni sax kii dina la faj. am naa yaakaar ne sama doomu góor bu mag laa àndaloon. Mm. sama doomu xool ma bu yàgg mais am nga xaalis. ma ne ko aw ma xaalis wante yàlla am na. yàlla am na nii naa ko ko waxee. Mm-hmm. léegi nag ndeysaan ma ñëw mu xool ma. Mm. ndax xam na li nekk sama yaram la li sama yaram sonn naa diis diis na torop ekkiti tànk sax mënuma ko woon. defal la micro bi tuuti. waaw ekkiti tànk mënuma ko woon. Mm-hmm. loxo yi mënuñu sax téye téye bi ma téye tey nii. Mm-hmm. mënuma ko woon. yàlla nag maa koy sant di ko maa ngi sant yàlla di ko sant di ko ñaanal yàlla di ñaanal njabootam. Mm-hmm. mais yaay xamoo xamoo woon uh, ban feebar moo la tëral. waaw. ndax feebar bi nekk si man. Hmm. feebaru seytaan la. seytaan. waaw mu nekk sama yaram bii. Euh, a leeral foofu. waaw feebaru nitu nitu guddi ndax man su ma tëddaan ma ne. Hmm. damay toog su ma nekk bu xeet du tëdd ma naka damay sàmm sama njaboot. Hmm. di ko waxee noonu sama olof lañ. fekk la muy yëg ma kii àll bi kàkka sonn na ma sonn trop sax. dafa mu dégg ndax sori. yaa ngi dégg fan. maa ngi dégg ba Géero lépp la ñuy laa dégg mhm. waaw foofu foofu nga jógee léegi nee nga ay nit guddi ñu la sonal léegi nga ñëw mu faj la ci boobu. léegi yéen nga sopp bu baax a baax. am nga sant ndax li may lekk daaw ma gën mhm. li may naan daaw ma maa ngi togg sama njaboot gi añ te daw mënuma woon togg. mënu woon toog di yëkkati ci teg mënu ma si woon dara su ma yëkkatee damay sant sama yaram nu muy diise noonu laa koy tegaat wallaahi. léegi loolu yëpp dem nga ba sentir ni ko dañ na. sentir léegi yooyu daawoo ko mën a continuer. léegi nga xamante ne faj na ma. ndax bi muy ñëw si moom. nii laa defoon. nii. sama mbagg yi mënu ko woon a wàcc. dama ko tàmm sa bu sama toy gi ma def nii sama doom bi ne ma yaay du wàcc si mbagg yi mu ne am di man noonu ko antalu sax wallaahi yooyu yëpp dañ na. waaw yaay xam nga dafa am benn bés dama dama dama dama laaj moom. Mm. kilifa gi ci wàllum ci nit guddi. ak seetaani ak rab. lan moy seen sabab léegi xamna mom moom léegi la ñëw mu tontu ma ci lolu mm. su ko defé ñu daal di xol li ñu gëki kii kilifa gi bu ma mëno bu ma mëno na jot kilifa gi léegi mu daal di ñew toogee ni ma laaj ko mbokk spectateur yi gis ngeen c'est est lepp lo xamni euh, lu amul seede baaxul mm. liñ daan wax yépp ak ciol ciol yépp gis ngeen ko ki mo ñëwal bopam ñew togg fi daal di indi ECDM bu muy ñëw fii mënuloon dara mënuloon sa dox koku tay mo ñëwaat ak ay tànkam doxal bopam ba fi ñew togg di expliquer li def ECDM jëmale ko ci ki nga xamni moy cheikh ibrahima keita kon senegal ñu ñep ñu ci tegandoo bëtt donatu lo xamni nit nako lam lamé donatu lo xamni itam nit dina nek fi du ko du ko du ko du ko duut parce que kii fayuñu ko fayaanuñu ko mère de famille la kilifa la déplacer wul na bopam ñëwaat ñëw ba fi kenn woowu ko téléphone kenn neew ko ñëwal seede jamais mo mo sol dalam ñëw ba fi tok ne dafa bëgg a wax ak sénégalais wax wax sénégalais lan moko ko ak lan mo nekkon ci yaramam ki nga xamni yalla bolé ko ak mom mu génnee ko ci yaramam ba mu wér peng ba mu solaat dàllam mën a ñëwal fi boppam koo xam ne dañ ko doon indi longu indi ba fii kooku ma solaat dàllam dox ba fii ñëw euh, fas yéene indi ECD léegi dañuy jël kilifa gi rek daal di euh, kii ak moom léegi léegi moom tam mu indi ñu ci leeral. Euh, mooy comme li may wax rek man Cheikh Ibrahima Keita témoignage yi ñoo ma ëppal solo parce que dégg li soxna si wax am na lu bari lu mu bàyyi.

ndax lu am la moo tax keroog ba ñu ngi waxtaan manaan la man ñiy weddi nitu guddi am na man ñooñu dama leen a ragal waaw ndax sàcc fooy waxee ci koñ bi naan sàcc am na fi te fekk sàcc bee fa moom ci boppam danaan la bàyyil wax yooyu kon nitu guddi ça existe kii li ko toppoon ci nitu guddi bu ñëwuloon fii ci man fanam day gàtt amul fu mu demul ci kaw suuf pour fa hôpital da koo jeexal analyse bu ne lu ne def na ko ci kaw suuf faj bu ne faj nañ ko waaye gis nga euh, li ñuy wax rek ki yalla na a sauver la vie dalay womat ba indi la ci ki lay fajal sa aajo waaw bam fi ñewé alhamdulilahi rabbil alamin bo gisé sax euh bam fi dalee fajok tay def weer fi mu dëkk ndax mu ngi dëkk ba boru popo ngeen limay wax Cheikh Ibrahima kayta national weesu na ko léegi international la fi ba popo ngeen la jógee ñew fi ci man am ci man yaakar yalla dogal ñu fajal ko jangoro waaw moy li ngeen fi gis ku sonnon la wax deug yalla waaye sant na yàlla nag bu baax ndax ba mu fi doon ñëw dégg nga la mbagg yi dafa doon aj mbagg moom moom ci boppam amul woon yaakaar ci moom moom ci boppam ay mbokkam kenn amul yaakaar ci moom ndax nit am na noo koy gisee rek boo àndut ak sa sang-froid boo moytul doo am yaakaar ci moom waaw. waaw seex bi euh, ma may laajte waat mm-hmm. euh, neew nga. maanaam euh, yow appareil euh, Cheikh Ibrahima Keita maanaam nit guddi bu la jàppee mën nga dem hôpital bu la neex. appareil mhm. Cheikh Ibrahima Keita mooy appareil bu lay gis. waaw dafa mel ni bi moo nekk nii. mooy li may wax rek parce que boo seetee nitu guddi. médecin mënul médecin mënul a diagnostiqué ba ne kii ay dama ko jàpp. ñoom bu ñu tëlee mais dañ naan la demal ñaam lu rek mais du ñu xam exact kii lii moo ko jàpp ci Cheikh Ibrahima Keita kese ngay ñëw mu diagnostiqué la wax la li la jàpp lan la. ñaata nitu guddi ñoo la topp bu góor la ak bu jigéen bi nii la demee fii la la jàppee fii la toll ci yow loolu suñuy appareil moo koy gis boo déggee ma naan appareil mooy jinne yi nga xamante ne ni dañ ko doon ci maam Sunjata muy loo xamante ne ni nag du du jinne yi làmbaatu non non mindeefu yàlla la bu mel ni ñun suñu maam yilifoon ko ca 1200 Sunjata Kayta ñun ñu doon ko ci moom muy walangaan ba ci ñun moom la ñuy jàppalee jaamu yàlla yi moo tax képp ku ñu teg loxo. yàlla teg ci loxoom soxna sii ba mu fi ñëw meluloon nii xool ko bu baax ba mu fi ñëw gémmiñ gi mënu ko woon ubbi waaw dañ koo téye woon presque ci point bi mu tolloon bu amaatoon ñetti fan day faatu wallaahi wallaahi parce que nag maanaam euh, maanaam luñ koy waxee lubbukatu jaan moo xam lay jaan lan la moo xam lan mooy jaan waaw man ba ma ko seetalee ci laa xam point bi mu toll kii dafa nar a sëbe dafa nar a sëbe wu ndax bu yegsi woon fii moom bu bu yegsi woon fii moom kon jamono jii kenn waxatul ay waxam Omar. bëggoon nga ñëw ci. wallaay yàlla xam ne ni loolu boo ko waxul woon sax fàtte naa ko ndax mooy li may wax rek ñun bu dee am-am dugaluñu ci faj bi faj bi dañ ko doon man depuis ma naissance lii laa xam waaw ñun xam-xam kese lañ doon. ne yàlla bu dee xaalis ñu koy am loo xamante ni dalay xamal boo xëyee journée bi nangam ngay am kon ko yow amatul lenn looy daw bay daan sant yàlla dafa am nag ñoo xamante ni ni boo leen dimbaliwul ñu sànku boo leen dimbaliwul seen bakkan jaaree fa moo tax ba mu ñëwee man sama jëmmi boobu dama ne ko yow santal yàlla ndax li la dal boo fi yegsiwul woon tey jii <laughs> doo def ñetti fan ci kaw suuf te ma ne nit ku demul ba mun nit ku dem ba munul ubbi gémminam ak gémmin ni mu mel munoo dem ba ubbi ko ah wax mais kooku nan lay lekke kooku nan lay naane loolu dem ba deñ xool ko alhamdulilah mooy indi boppam day jógee ba pop ba popo ngir demam fi ñëw moom ak doomam ñoo àndal waaw sant yàlla ñun yàgg xaalis dugaluñu ci ñaan mel ni comme li nga li nga waxoon rek euh, dafa dafa xam nga ko ci nekk dafay am mm. euh, euh, même boo mënee lem sax mais dafay am loo xam ne mooy sa spécialiste mm. mu mel ni dëmm ak rab seetaan yi sa yëf la. waaw loolu loolu wax dëgg yàlla neexul ba neexul nag Cheikh Ibrahima Keita amu ci morom waaw nitu guddi jinne mbir yu garaaw yooyu mbiru fal yooyu. yooyu Cheikh Ibrahima Keita ci fal boobu fal boobu sax laa bëgg ñu ñëw ci. waaw waaw euh, fal bi. parce que dañoo dañ ci cosoon. Mhm. keroog ma bëgg nga nga nga gën ma ñëw ci wàllum fal gi. ndax ku bëgg ku bëgg a <coughs> moo xam jiite nguur. Mhm. wala bëgg a falu ci société nekk euh, euh, DG bi. Mhm. ndax bu jaaree ci yow. waaw xam nga dafa am lay fale gis nga dafa am beneen monde boo am bu dul monde humain dafa am monde jinne loolu xam-xam moo koy xam sëriñ dëgg buy taxaw naan damay fale te xamoo li may wax nii mënoo lay fal dañoo yor juróom-ñaari jinne yoo xamante ne ñoo yilif pénku ak soow mm-hmm. jinne yooyu ñooy taljing mal ji li majajing hijing kii yu am lankat jaw ñooñu ñoo yilif penku ak soow mhm. ndeyjoor ak càmmoñ mhm. ñooñu boo bëggee fal nit te du fooleeku mukk mhm. ñooñu faw ñuy jàll sa ginnaaw nga leen di def loo ñuy def man Cheikh Ibrahima Keita ñooñu dama leen doon ci maam Sunjata moo tax wàllu fal bi ngay wax petit affaire la

waaw maanaam nit euh, ci wàllum dama koy général ci wàllum woy mm-hmm. artiste bu bëgg a siiw ba ñu ràññee ko yooyu samp googu maanaam dañuy de balaa laa ci mbër yi sax maanaam ku samp ci mm-hmm. wàllum milieu sow bi ne wàllu ne wàllu yëkkati rek wala yëkkatiku voilà boobu xam nga yëkkati dafa am spécial ni ñuy yëkkatee doomu aadama mm-hmm. nit ki da ngay jël bidéo aj ko foo xamante ne ni nit ñu mag ñi fañ ne fa nga koy aj moom moom ci topp boobu rek lay nekk du wàcc mu. du wàcc waaw même bu fekkee niveau. Mhm. wala darajaam. Mhm. wala xam am yégul foofu. Mhm. moom moom xas na ba dugg fa foofu rek lay nekk. fu ñuy xoolee nit ñu mag ñi fa lañ koy xoolee loolu am na fi. moo tax keroog ñuy waxtaan mën a la Sénégal. waxuma la waxuma la ñu ndaw ñi de ponkal yi fi ponkal yi ngi fiy ñi fi siiw ñëpp su may taalibe lañ. loolu kay preuve bi mooy dugal ci sama seen YouTube. CIK. CIK TV Sénégal. mu indi la ay firnde. waaw ña ngay gis ci Sénégal yëpp fii ku fi balballu man maa la teg fa nga ne. ndeysaan waaw te loolu lu leer la. Mhm. waaw te wax naa ko waxati naa ko ndax su ma wax la. du li ngay wax si parce que naa ci indi am na kenn koo xam ne nit ñëpp xam mu ci télé bu mag. voilà ne man kii mooy sama sëriñ. voilà mu ngi noonu kii mooy sama sëriñ man maay taalibe kii laa kii laa xam. ku ma laaj kan mooy sëriñ. noonu la amee noonu la amee ci waykat yi. Hmm. amee ci mbër amee ci ba ci feccekat yi. ma jox la bu gën a ndaw rek ma bu ñëw fi nga ñaan ma jox la bu gën a ndaw bu nekk ay daa sax suba taal bi la <laughs> ak mu ngi noonu waaw ci ñu gën a ndaw yi rek. ma <laughs> mbër bu ñëw di nga di nga ko ñaanal. waaw ñëpp te ñoom ñëpp ñu ngi fiy ñëw. ñoom ñëpp ñu ngi fiy ñëw dañu baaxoowul nag. Uh-huh. di leen lim ndax du seen arrangement. waaw mais ñoom ñëpp ñu ngi fiy ñëw. Mm-hmm. waaw koo fi gis mu jóg xamal ni jaar na ci Cheikh Ibrahima Kay. waaw loolu ma la ko wax. waa seex bi euh, mi ngi noonu euh, tey nag loolu lañu indiw kii moo nekkoon euh, suñu gan mu ñëw indi ECDM ci Cheikh Ibrahima Keita mhm. xam naa ni à très bientôt mhm. suba rek dinañ defaat beneen numéro bu soobee yàlla jegleel ko ñi nga xam ne maanaam way tawat yi mhm. ñu waxtaan ci ay feebar yu bëri bëri bëri bëri ak ay ñaan bu soobee yàlla dinañ ci ñëw bu ëllëgee incha allah Cheikh Ibrahima Keita